ami internetu AG PROD TV ñu ngi amaat contentement ak mbégte bu baax di dee jawaat ak yéen si seen info du jour waaye nag képp rek ko xam ni abonné ko ci seen bile ñu lay wax rek nga daal daw abonné te activé rek li nga xam ni moom moo di eh, cloche de notification bi ngir rek ngeen di mën di am suñu ay video à temps bu leen fàtte di like vidéo yi ak di ko commenter ndax lu ci ama am solo la làmb lan koy daal di doole fii ci diwaanu Sénégal mu mel ne rek eh, bàkk ba daal dina juk rek wuure wak jëm na këng waxi mag eh, dem ndantaali lu waaye doon jaay rek eh, tey mu daal di lamb kii di Modou nag ak ki nga xam ne rek eh, moom moo di Boy ñaa seen jàkkaarloo bi rek daal di nañ ko def nekk ni démb rek mu mel ne nag moom mii di Modou Lo di le roi des arènes ak ki nga xam ne rek moom moo di Boy Niang combat ba nag ñu nekk rek doon ko werante dina am ak am finalement nag kii di Gaston production daal dina taxawal boobu les combat Euh, ba tax na rek démb rek lan doon daal di def li nga xam ne moom mooy seen euh, jàkkaarloo bu njëkk rek ngir rek def seen euh, signature ngir confirmer rek li nga xamante ni moom moo di boobule taxawaayu combat ki nga xamante ne nag moom moo di Boy Niang moom daal di na rek yëkkate ay kàddu yu ama am solo rek daal di koy jëmale rek ci ki nga xam ni. moom moo di Modou moom di roi de arènes ndax nag daal na rek journaliste yi damay daal di faral rek ngeen di wax naan Modou mii Euh, moom nag dafa nekk ab ibaada wala dafa nekk ustaas wala yu ni mel yooyu nag ay signe la yoo xam ne signe yu baax la euh, te ñun ñi tamit noonu lan mel danoo gëm suñu diine danoo gëm suñu cosaan ndax nag ñoo ko dàq julli fuuf kon nag su ngeen ko ko dee wax dafa nekk loo xamante si lu baax la gannaaw euh, làmb à part làmb nag diine gi rek moom moo daal di jiitu ki nga xamante si nag moom moo di Modou Lo le roi des arènes actuel moom nag daal dina xam ne rek combat bi nag li tax mu jël ko nag bokk na ci rek ki nga xamante ni moom moo di uh, booy ñaam Niang moomulee uh, bëre goo xamante ni rek da koy def ndax nag nee na moom daa bëgg rek képp koo xam ni. Euh, day daje ak moom muy bëre te day sawar nag ci bëre ak bërekat moo tax nag combat bi incha allah bu ñu ca àggee rek dina doon combat boo xam ne des ni bu neex la ndax di dinañ bëre dinañu xeex te tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di amateuru lamb yëpp ñoom it dinañu daal di rek euh, kontaan gannaaw ki nga xam ne des ni moom moo di. Euh, Boy Niang bi ñu ko laajee nag si sa diggante ak Ama Balde moom nag daal la xam ne rek. wax jooju nag ak jëm ci wàllum Ama Baldé moom dan koy rek daal di close nan ko daal di tege na leen ndax man maay ama ama mooy man ndax nag ci diwaanu làmb fii ñu toll nii man ak moom dañoo bokk ay adversaire damay bëre jox ko rek wala moom mu daal di bëre jox ma waaye nag ci blessure la nekk nag loolu rek moom moo war a tey sama combat ak ki nga xam ni moom moo di Modou Lo daal di taxaw te nag ginnaaw bi may bëre ak kii di Balla Gaye xalaatuma woon ni tamit ki nga xamante ne rek moom moo di mut loo laa war a bëleer appelé xëy na suñu borom moom moo ko indil rek te suñu borom moom moo ko indil xam na lu mu ci namu loolu mu ci namu nag yàlla na ko suñu borom moo mootale mu nekk rek loo xamante nii ay kàddu yu am solo la yoo xamante ni kii di. Boy Niang daal dina ko yëkkat rek daal koy jëmale ci ki nga xamante ni moom moo di Ama Baldé mu daal di xam ne ni Ama Baldé rakkam magam la xaritam la léppam la ñoom nag ñoom ñoo bokk seen Pikine googu te it dañoo bokk rek li nga xamante ni moom moo di ay adversaire su dee kii di Modou Lo nag moom daan la xam ne rek loolu sax du ci sax nekk di ci débat ndax nag kii di Ama balde ñoom ñaar contrat lañu ñu seqoon gannaaw nag ba nga xamante nii ay blessure daal dina ca am rek moom moo dal tax boobu le combat ñu daal di koy annulé sama combat ak ki nga xamante ni moo ko kii di Boy Niang moo daal di taxaw kon combat boobu rek ci laay mën a ndax nag moom moo nekk actualité nu may préparé suma combat lay xool ak nu ma ci suñu borom mayee ndam lépp loo xamante ni nag laaj na ko rek dinaa ko def ngir rek mu am ci ndam parce que c'est la première fois rek ma daal di génn li nga xamante ni moom moo ci sortie boo xam ne moom laa def en tant que roi des arènes te fi nga xamante ni foofu lañ ko war a bëree rek di arène nationale ba euh, suma fa rek euh, teg suma tànk daal fay euh, bëree gannaaw nag mi nga xamante ne rek ànd naa fa ak suma ay poulain ak yu ni mel waaye nag sama ngémb rek tooyaleegu ma ko fa nga xam ni moom mooy ca aram national ba te bëgg naa rek su ma fa demee rek di bëre rek suñu borom may ma fa li nga xamante ni moom moo di ndam. su dee Makane Mbengue nga xam ne nag moom mooy euh, doomu Gaston Mbengue nga xam ne ñoom nag ñoo tax boobu boobule combat muy Gaston production moom Makane nag daal na xam na ne rek moom nag combat bi li mu ci gën a bëgg rek mooy jàmm ak salaam fair play euh, suñu borom suturaal leen ba lépp loo xamante ni bëgg nañ ko ci rek ci boobule combat suñu borom àggal ko ci jàmm ak salaam ndax nag nemmeeku nañ jamono jii rek fi ñu toll nii rek maanaam ci wàllum làmb moom blessure yi dafay baree bari loolu waaye. waaye nag ñu ngi rek ñaanaat ci suñu borom mi nga xamante si mooy borom kun mooy borom lépp moo kàttanal leen may leen doole rek ba lépp loo xamante si namu nañ ko ci boobule combat rek suñu boroom daal leen ci may ndam ngir rek combat boobu daal di mën a àgg tey jii loolu moom moo gënoon a fes ci xibaar yi ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah.